ci parce que ñu dañoo amoon jafe-jafe suñu académie Pikine Guédiawaye parce que élèves yi jóge CM2 di ñëw sixième dañuy bari ba nga chaque année dañuy gëna yok mais collège duñu yok lycée duñu yok donc di dafa nekk lo xam daf ñuy daf ñuy daf ñuy dimbali bu baax ñu am beaucoup plus de classe pour orienter suñu élèves mais aussi améliorer conditions de travail parce que aussi classe bi lu mu gëna bari élèves njàngale mi gëna jafé mais lu élèves yi gën enseignant bi gën performant xale yi performant aussi parce que dafa am relation bu nek entre l'accès et la qualité jafe jafé bi ñu am moy élève dañuy bari clash du bari man léegi on se trouve avec des ratios élèves classe de 117 élèves par cas xam nga lool mom dafa jafé pour un professeur pour mu jangal leen kon investissement yi mi ngi talal loxo encore suñu maire monsieur Abdoulaye Timbo vraiment pour mu jappalé waa ñu ba ñu gën améliorer accès bi ci collège ak lycée yi

dans 12 disciplines euh, temps au Covid bi mais vraiment jappal nañu ci bu baax ba ñu réaliser projet bobu ak aussi chaque année dans ñuy financer ñu mën def séminaire bilan euh, au niveau au niveau de Mbour chaque année aussi mu mu en table banc. li fi indi won tay moy di xol liggéey bi nga xamé ne dénkoon nañ ko entreprise bi ñuy wax Kayfa saytu set fan la tollu ci liggéey bi euh, liñ ci mën wax moy suñu xol sedd na ci parce que wax dëgg fa yalla biñ ko ko denké ak légui yagul lool mais bi ñu gisee fi liggéey bi tolloo daanaka mën nañu wax ne li ci des mu jeex mu pare dëgg dëgg pare bëreetul. am na nag euh, benn partie boo xam ne avenant la bokkul woon ci projet bi bi ñu koy njëkk a lancé mais demande la muy euh, bloc administratif bi bi ay bureau principal beeg salle des profs yeeg yu mel noonu moom mu nga ne la ñu commencé te suñ ko gisee nii wax dëgg fa yàlla moom it mu ngi avancé bu baax a baax te rythme bi baax na. jàpp nañ ne daal loolu lépp euh, fii ak fin décembre incha allah rabbi jàpp nañ ne dina war a mën a fekk lépp luñ ñu fa waroon def muy liggéey ñu pare ko. waaw li ko xayma projet bi dafa bokk ak projet wu CM bu Mbaaw lépp buñ ñu ko xaymaa dafay toll ci 1 milliard 276 millions huit cent mille. Euh, partie bi ci gën a rëy nag wax dëgg fa yàlla fii la féete ci CM bi parce que CM fadilu job déjà dafay am 22 salles de classe ak euh, le bloc administratif euh, muy parti bi gën a rëy ci projet bi donc mu ngi fii ci CM Mbaaw muy mbégte gu rëy. parce que pour que xale yi nekkaat ci condition yoo xam ne mooy yi gën ndaxte classe yi bu nawet daa jot classe yi ci gën a bëri da doon dugal ndox